jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ak mbokku internautes yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax mbokk yi di aman mbégte comme niñ ko daan defee rek saa su ne defoon nañ ko fële ca Tëngéej ak doomu dàngu defoon nañ ko fële ca yi Géej ak Baye Mandione barki demb def nañ ko fële ca Grand Médine ak Albury tey ñoo ngi fii ci Seras mbokk yi fekk fi un très grand champion Jordan nekk champion boo xamante ni tàkkusaan bu ne bëri na ko waaye lu jiitu loolu mbokk yi dañuy jaale axlu làmb gépp ki nga xamante ni moom mooy Moussa Dioum barki démb la fi jóge mu nekk bés boo xamante ni du jaas ci kenn kon ñu ngi koy jaale axlu làmb ah di ko jaale waa parcelle gépp di ko jaale képp koo xamante ni rek yaa ngi yëngu ci làmb di ko jaale sénégalais yëpp ndax musa jum doomu réew mi la woon Moussa Dioum doomu dëkk bi la Moussa Dioum doomu ñëpp la woon yal na yàlla serul serul ay cëram ah yal na suufu Touba sedd ci kawam waaw ah, bés boobu nag ku ko ji ku ko dul bàyyi xel nag lu la neex defal ndax nag xalaxal moo tawal xayaata dunia yàlla suñu borom dee la njëkk bind ka dund kon bés boobu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ku koy bàyyi xel dinga fexe ba rafetal sa digganteeg jàmm yi Fadam comme ni ma ko daan defee rek mhm. balaa may def dara dama lay dama lay bàyyi nga nga nga nuyoo ak ñi lay seetaan bàyyi la nga nuyoo ak mu Gates Events bàyyi la nga nuyoo ak Pape Souleymane Bathily bàyyi la nga nuyoo ak As Bekaay ak Bantamba ak mbokk yi lay seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu boo ko defee rek nuyu nga jullit ñëpp Fadama ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm yaakaar naa ne def nañ ko nañ ko daan defee te ñëw nañ foofu feneen foo xam ne nii bokkut ak fañ daan dem. Ah, di jaale waale nag axlu làmb da ko bàyyi bàllam bu boxee Fadama ngi nuyu réew mi yëpp di jaale Moussa Dioum mi nga xam ne nii moom lañ bootal xaadimul xaadim barki Dembo Ndiaye di ñaan yàlla na ko yàlla yërëm ta xare ko àjjanay si yaakaar naa ne diwaan bii ñu nekk nii tey jii fi la Moussa Dioum wàlli si woon te ji fi si bëre muy diwaanu Pikine yaakaar naa ne yàlla ko yàlla yërëm Baye Balla Mboup yaakaar naa ne moo gën event si yaakaar naa ne structure bu mag la boo xam ne nii dañoo ñëw ci wàllu làmb ngir yokku làmb ndax yaakaar naa ne làmb kenn mënu fee def lu fi kenn defut waaye da ngay jéem a def loo xam nii rek yaakaar naa moom nga doy ci sa xol. yaakaar naa ne la 15 mai dañoo boole journée boo xam ne nii yaakaar naa ne mbër yi gën a ës boole yaakaar naa ne journée bu ñu boole Lac Rose ama neex boole Baye Mandione Zarko boole doomu dàngul bi nga xam ne dafa jeexal espoir yi ñu ne ko kuñ lay boole ñu ne Jordan mi nga xam ne barki dem moo daan Forza bu Fass te Forza bokk na ci ñi ës ci wàllu làmb muy combat boo xam ne combat royal la am na ñoo xam ne ci ay nitu làmb dañ naan diggante Jordan ak doomu dàngul combat roi des mu nekk combat boo xam ne nekk ay mbër yu ñu yaakaar nekk ay combat boo xam ne ni axlu làmb yëpp a ngi koy bàyyi xel Baye Balla Mbuub tey jii bu ñëwee fii ci Seras ñëw nañ ci dëkk boo xam ne dëkku amateur la yaakaar naa ne bi stade yi gën seer waa Seras ñu koy dagg yaakaar naa ne amateur yi gën a mag waa Seras ñoom ñoom la te ndaanaan yàgg na fee suqeekoo waaw. Sëriñ Seras taxee fii toog di champion boo xam ne nii mu nga calam Lamsaar waaw waaye mënuñoo dem dem dem ndax daa am génn kilifa goo xam ne dafa nekk suñu wet yàgg dimbale ak lu làmb muy Grand Fouta. mu ngi nii toog suñu wet nekk koo xam ne amul benn mbër bu nekk ci diwaanu Pikine wala Géejawaay te mos a ñëw ci yow jàppale la kon bu toogee fii suñu wet nekk ci mag ci làmb dañ koy jox lim moom. Baye Balla moom du ñu dugg see ci question rek ah bàyyi nga ibbi ñu commencé ci diggante ñun ak ñun ak suñu waa ji li nga xam ne nii tey jii dañoo dem seeti doomu dàngul mu wax lu ñaari yoon ndax li doomu dàngul wax bëri na ndax tey nag sa dina tontu ah dañuy bàyyi rek ak Baye Balla mu ngi ibbi ñu jublu ci waxtaan wi Baye Balla Mbuub Euh, jërëjëf ah euh, Fadam tu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Mhm. résumé nga lépp wax nga lépp ah laataa ñuy dugg ci waxtaan bi damay bàyyi Jordan moom tamit mhm. nuyu ay am nuyu di jàmm ah après ñu jublu ci waxtaan bi. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yoon bi sant suñu ñaar waajur ñoo ngi sant waa Seras bi ñu nekk fi nga xam ne fii lañu màggee fii lañ yaroo fi lañ defee suñu enfant yëpp ba xëy toll ni tey. ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di nuyu waa Pikine ñëpp di nuyu waa Sébikotane bu ma jógee bàyyeekoo fa moom mooy sama dëkk fa laa dëkk sama yaay fa la dëkk seen fay fa la dëkk waaw di jaale Moussa Dioum sama mag la suma xarit la yàgg na si ay teranga mu mujjee gisante ak moom di nga dajee benn signature contrat mu ngi takk benn montre man ko grand lii nice na ko quoi muy ñibbi rek ñëw sànni ma ko loolu daa waroon bëre may bëre ma loolu moom mënul weesu nekk borom baax moo tax maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xaaral ko àjjana gaa yi kanam micro bi ah. jërëjëf Jordan. waaw dégg nañ la bu baax. léegi mm-hmm. ginnaaw bi nga nuyoo. Mm-hmm. léegi nag yaa ngi jëm ci combat bu mag yaa ngi jëm ci bisu le 15 mai. ñu ànd ci moo gën events mais xale bi ngay dajeel xale bu dangereux la. Mm-hmm. ndax xale boobu noonu ñu ngi fàttaliku keroog euh, ci tournoi TFP bi ca stadium Iba Mar Diop. ah bi mi bi muy bi muy dajeeg ah, bëri na fa euh, Ramdan ca la bokkoon ci claf bi ah. doomu dàngu ca la bokkoon sokk ca la bokkoon mu nekkoon fa xale boo xamante ni dafa lëmbi woon claf claf bi ak càmmoñ bi ngi sóoraale lu ñuy wax rek ñun yàgg nañ ci làmb làmb luñ ci gan yaakaar naa ne def nañ ci at bare bëree bare bare bëree bëri kon doomu daangu champion la comme ñu yeneen champion yi daal xam nga loolu moom du problème quoi man moom xam nga lu sama kanam mooy xam nga daan ko jàll dem xool leen quoi vraiment amul lu may xool ci moom champion la nag naa ko cër respecté naa ko mbër la ko mbër yi mais wax dëgg fa yàlla bu dekkee dëgg rek moo neex yàlla bàyyi ma ko sax xel wax dëgg fa yàlla sama xel mu ngi si kanam moo war a màgg sama retour bu baax a baax a baax. est ce que yaa ngi bàyyi xel xeetu xeex bi doomu dàngu yor ak xeetu bëre bi. mooy li ma la wax bëri naa ñu ko dàq xeex bëri naa ñu ko dàq bëre kon yaakaar naa kuy xam Jordan doo ko aw ma sax xalaat di di xalaat si bëreem wala xeexam parce que lépp lu muy war a fekk na ko fi te am na ñu fi jaar ñoom ñoo gënoon tàng fuuf ci wàllu xeex ak bëre te tey ñooy coono bu ñu am yaakaar naa maa leen teg coono teguñu ma coono champion nag mbër la jox naa ko cër respecté naa ko vraiment. non tey jii suma ma soñoon sax duñ dugg ci wàllu respecté ndax te jii doomu Dangu dañ ko sekk ji Tëngéej. Mhm. mu téye micro bi ne ma Fadam ne Baye Balla Mbuub Jordan ñemut a xeex ak man su ma ko gëddee du taxaw. seetaan naa leen bu baax a baax waaye man wax dëgg fa yàlla gaa yi xaaruñ ci man wax ju bëri damaa war a prouver ak ma war a yóbbu sama carrière ak ma nit ñu xam ne kii kat daf bokk ci làmb kon man yaakaar naa taasu bi ak kebetu bi wax dëgg fa yàlla amateur sax xaaruñu ko ci man man jëf la ñuy xaar ci man ci kàttanu yàlla mais ñu bëri dañu delloo avance doomu dàngu lan moo tax nga jël ko. waaw doomu dàngu champion la. champion wax dëgg fa yàlla champ mooy mooy ma sànq champion la mbër la man amul benn mbër bu may xeeb man sama combat ñu bëri delloo nañ ko. kon moom bu ñëwee jël ko dama ko ci sant bu baax a baax a baax te xam na nag loolu laa yàgg a wër combat comme moom moo ko jël nañ dem a bis ba incha allah ñu xool. su bés baa bu bu doomu dàng xeexee ak di nga dëggal sa bopp. dëggal li ma la sànq man doomu dàng amul lu may sóor ci moom lu mu andi fekk ko fi. nañu wax moom est ce que moom dina taxaw loolu mooy wax ji. est ce que dina dëggal boppam. voilà man loolu lay xalaat mu bañ a def ay jëm góos jëm mu taxaw ñu joxante affaire mu jeex. bu taxawee di ko jëli. déggoo li ma la xamal man man doomu dàngu kurul doomu dàngu abile primaire sa kaw. mais Jordan. Jordan bu ma ci làmb nag yàlla bu ma ci làmb. Jordan doomu dàngul dañ ko boole sa benn poulain boo xam ne ni soq la tudd. Mm-hmm. Mm-hmm. soq bokk ci espoir yi mën ci làmb. Mm-hmm. doomu dangul ñëw wane ci boppam. biñ ko posé question boobu dañ ne ko sa diggante tey jii Jordan dafa ne Jordan li muy bëri daf maa arrangé li muy xeex daf maa arrangé lan moo tax doomu dangul osé ci sa kaw tey dafa jot nga wax amateur yow yaay kan ndax fi nga toll ci làmb da ngaa daan ay champion yoo xam jii ñooñu fu ku leen ku leen tikk micro lu leen neex la te bu ñu te ñu a daan kon tey jii boo dajee champion mel ni doomu dangul dafa dafa jot nga wax yaay kan ci jot ñu xam kan mooy Jordan ndax poids lourd yi nekk ci làmb kenn ëpp la ñuy ëpp la kon jot na jot ñu gis ko ci wàllu làmb ci beneen facette bokkut ak bii ndax doomu daangul dafa taxaw ne moo la mën dàq bëri moo la moo xeex te loolu wax ñu war ñu mooy li wax rek saaga yaa xam xeex la waxul làmb lay wax rek waxu mbër mbër ku ne yàgg nga dégg maa mën kii doo nangam doo nangam bis bu jotee doo def dara kon man loolu yaakaar naa naa ci làmb waxu doomu daangu ma franchement déranger wu ma sax dafa may gën a yokk jom yokk ma yokk ma yeneen sañ-sañ parce que wax ju bëri amul sens pour man ndax man li ma la wax sànq rek mm-hmm. gars ci joroon baaxu xaaruñ si joo fecc trois points la ñuy xaar muy victoire loolu la ñuy xaar ci man xaaruñ ci man leneen voilà te kenn du ma ko baal tamit moo tax man maa ngi yoon boobu quoi. Mhm. mais mais dama gis ne dama gis ne Jordan dama gis ne Jordan communication bi dafa commencé nekk communication professionnelle gis nañ ne da ci sa diggante ak doomu dàngul combat boobu tey jii nan nga ko nar a ci bés ba ak nan nga nar a réagir ci bés bés ba boo ñëwee doomu jàngul tey jii indi xeex bu sax. tey ji boo gisee bunt ci bëri da ngay exploité bëri bi wala da nga koy fekk ci xeex bi 100 pour cent. mun naa la waajal si yàlla doomu dang mun naa ko jàngal bëree yàlla nag moo yor ay mbiram di di nëbb yi di feeñal yi mais buñ tokkoon surf yi léegi ma maanaam daal bëre bokkuñ sax man ak moom bokkuñ sax si bëre même xeex bu ñuy woote maa ko tax dóor mu daanu nag yomb na ci làmb ku ko yàlla may nga jël mais loolu mën a xam mooy buñ taxee man ak moom bu xeexee ci moom lay metti bu ñu bëree si moom lay metti alaaji Baye Ball moom dugal ci loolu ah? ñu xaar nodd bi gars yi mel ni ñu tudd ñu xaar nodd bi rek mu daanu. waaw. waaw waaw ah, ñu ngi ñu ngi ci waat ci Jordan ba léegi. Jordan gis nañ ne bi combat bi di taxaw gis nañ ci combat ak doomu dàngul bi muy taxaw Radisson poids bi nga yoroon dafa ëppoon lii fuuf. ma gis na tey jii nga xaw a wàññi poids bu bari danga nga bëgg a ci combat bi wala tey jii combat bi daa am loo ciy sóoraale ci wàllu xeex ba ak wàllu bari ba moo tax nga wàññi poids nii waaw liggéey bee métti rek xam nga boo liggéey day feeñ liggéey bi moo métti ñu ngi contact ñoo ngi boxe ñoo ngi physique loolu ku koy def am lu wàññeeku mais nag wàññeeku bi yëpp doole la parce que liggéey bu baax moom da ngay mel ni ko migré fekk yaa ngi doole léegi laa gën a sànni sama bopp nag léegi moom xam nga salañ salañ yëpp ñëwaat na bagage ba nga ci biir yaa ma gën xam. Mhm. mais est-ce que poids bi mu yor tamit Fadam est bi mën na ak ki nga xamante ni mooy doomu dàngu ak bëre bi mu ko soxlaa ci rapidité bi est-ce que poids bi joroon yor bariwul non man aw ma poids wax dëgg fa yàlla man su ma amoon cent cinquante kilos ma am sama bopp xale la damay liggéey sama yax baax na du ma xiibon dama namb si meew yi fii ba ak sooy ba mande lekk si yàpp ba suur man aw ma problème mu doole aw ma problème mu physique aw ma problème mu yéex wala gaawaay c'est que nag ni ku nekk nag la ngay gis ngay wax mais man moom maa ngi sant yàlla sama état forme bu baax a baax te incha allah mu ko sumee bis ba ngeen xam ne joomi yow ah am na lu mu àndaal incha nekk bés boobu. dafa mhm. nekk boo xamante ni la jeunesse mhm. moom lañ ci woote. mu nekk mhm. bis boo xamante ni bisu amateur yi la. dañu mhm. teg la lu war a mat six grands combats ci bis boobu ñu taamu ci Jordan ak ki nga xamante ni mooy doomu dàngu dañu bëgg nga wax amateur yi. Mhm. lan nga fas yéene indi bis boobu. ak naka nga fas yéene ñëwee ak ñan nga war a àndal. parce que amateur dafa am lu leen di indi ci stade bi. waaw mooy li may wax rek amateur yi lu ñu xaar si joo ñëpp xam nañ ko joo ñëw bëre daan la ñuy xaar man nag maa ngi waajal ma sumay mbokk waa seera fi ma toog nii maa ngi waajal bu baax a baax a baax ak waa Pikine waa Sébikotane boo fa duggoon tey xam nga mooy loolu. xam nga maa ngi waajal bu baax a baax aw ma benn pression aw ma benn lu may parax parax combat bi dama ko soxla te incha allah mu duggee sa làmb ja bu ma bàkkoo dinañ xam ne bëgg na li muy def su ma sumee ko dinañ ko xam te incha allah bu ma bëree ñëpp nañ d' accord incha allah. Baye Balla Mbuub. Hmm. Jordan daa am lay wax te nga dégg ko. Hmm. fii làmb toll ni tey jii fii rek Sa Thiès nekk. Hmm. da nga fa am place. te yaakaar naa ne daan doomu dangul mooy tax nga àgg fa. foofu noonu dafa commencé manqué adversaire te Jordan yor na taay bu mën a dugg foofu te nag fi nga jëm combat bi nga jëm ku la ko yombalal combat bu seere ngay bëree combat njër ndim ngay bëree ñu doomu dàngu waaw dama ne gi nga Jordan dama bëgg nga wax ñu doomu dàngul danee amul benn paa bu muy arrêté diggante yow te fa nga jëm say morom ñoom rëg-rëg ñii ci làmb di feeku yéen kase yi ñoom Sa Thiès da nga faa jot nga àgg fa te daan doomu dàngul tax nga àgg fa combat boobu lan lañ ci war mën a xaar ci Jordan ci yeneen facettes yu bokkut ak yim daan indi ci lamb ndax dafa jot stade say supporters ñoo gën a jege stade bi jot na Jordan wane ci mbooloo bi xam ne nii tey jii yaakaar naa ne moo gën bu tëggee journée bu toll nii jël ci ko supporter def ko ñetti kon kooku bëgg na mbër yëpp wane seen bopp ci wàllu mobilisation. Jordan sa digganteeg doomu dàngul dafa nekk combat boo xam ne combat roi des arènes la combat boo xam ne da war a sa bopp ci xeex war a wane sa bopp ci bëre. Jordan loolu la ñuy xaar sa diggante ak doomu dàngul ndax doomu dàngul nee na bis boo xeexee dootoo ko waxaat bis boo jàppee sa ngemb làmb ja a dégg daa a wax de daa war a wax man lu may wax rek man may wax rek bëriwul man lu may wax bëriwul xam nga man du gan ci làmb kon lu may waxoon léegi rek làmb bëri naa ci ba sonn du ma ci gan kon yaakaar naa communication ay bu doomu dàngu bu wax lii wax laa man pour man loolu concerné wu ma parce que sama bët comme li nga wax léegi maa ngi ko teg si kanam te combat bi moom ko mën a may te xam naa combat bi fan la may yóbbu sax ma jógoon jël ma ko ndax ay caaxaan te ñëwaatuma si làmb pour ay daanu damaa ñëw si làmb pour sama bopp dem jël li ma moom comme sama morom loolu ma andaat ci làmb sinon kon tukki naa bu yàgg am naa ay visa yu dul jeex moo ngi sama passeport mais damaa bañ toog ay bor laa mel gars yi toog dama la ko war a fay loolu moo fi téye dama ko war a fay kon xam nga ne combat bi kon fonk naa ko xam naa loolu ndax dama mhm. gis ne say morom ñu ci mhm. may na la ko mhm. nga bàyyi fi visa yi ñëw toog ci làmb lan la te ji ba bëgg percé àgg fi say morom àgg lan lan yan ambition xam nga tey làmb dafa doy waar mën bëre mën xeex am lépp am lu la manqué mu xaw la tardel mais sant yàlla nag parce que moo ko manqué non li ma manqué mooy suñu borom dogal mooy suñu borom bu bëggee mu neex dina neex su bëggee mu naqari day naqari kon loolu yaakaar naa jor ñu koy waxaat voilà li ma bëgg nag mooy ak li ma gëm mooy dama am sama cër dama koy jël si te incha allah si combat bi naa ko jël ba ñëpp dinañ jàpp seen gémmiñ xam ne kat waaye ji lu ma def na ko si kàttanu yàlla. Hmm. lu waral choix bi fii laa màggee fii ma am 16 ans xaw ma 14 ans damaa bàyyi jàng ñëw fii fii laa def naa fi 10 ans et quelque fii laa xam fii laa màggee lu ma am fii laa fii laa tiitaroo fii mu ma lu ko gën moom lu laa koy andi fii laa bokk. moo tax ma ñëw fi. am na solo Baye Balla Mbuub. waaw waaw waaw. waaw. waaw te gars yi mel na ñu tudd gars yi mel na ñu tudd. waaw waaw. waaw waaw gars yi gars yi gars yi mel na ñu rek ah, Baye waaw. waaw. waaw. mooy lu ñuy wax rek man dégg nga li mu laaj. waaw mooy li muy wax rek. man la ñeenti kaaw doomu daangu ngi ci moom. mooy li may wax rek. cinq la cinq ñoo xam ne ñoo tax forza mais ñu bëri. te loolu intéressé wu ma mooy ma wax rek làmb du ma ci gan. ay ma ko ma gëm mooy li liggéey te maa ngi liggéey te xam naa ne bu xeexee rek moom dootu ko defati su kattan yàlla bu xeexee ak man dootu ah. xeex expert la xeexee keroog kan moo wari ñoom ñoo wari man aw ma problème boobu ku xam joo xam ne amul problème xeex wala bëree bu a neexee nag wax lu ko neex moom la concerne man gëw ma ay gauche ay droite man lu ma gëm mooy li may andi kenn du ma ko teer incha allah bu neexee yàlla. laaj. Mm-hmm. te dama bëgg lu archive di denc lay doon. Mm-hmm. te dama bëgg nga tontu ci nii ngeen normal. immédiatement lan mooy sa rêve ci làmb lan ban rêve boo xam ne saa yoo tëddee. bu guddee muy sa rêve boo xam ne moo nekk sa biir xol ci wàllu làmb waaw mooy lu ñuy wax rek borom bitig mbagg boo gis boo xoolee xol ba fekk magasin waaw kon jooroon fi li mu bëgg si làmb ñoo xam nañ ko comme ñëpp comme ni ñëpp bëgg nekk roi des arènes andi ko fii seeraas ñëpp bëggee loolu mooy sama rêve comme ñëpp mais nekk roi de arènes nekk roi des arènes lan moo ko mën a may Jordan nekk roi de arènes yan tànk la Jordan di mën a jaar pour man koo nekk ndax dañoo gis ne nekk roi des arènes ñëpp dañoo nekk ci ay loxo. Mhm. Jordan yan loxo ko téye ba mu am rêve pour nekk roi des arènes. xam nga ko xam Jordan bu njëkk ba xam léegi bokkul dama doon dem ak sama tolox tolox rek yëfu xale mais tey am na ay kilifa nekk sama ginnaaw yoo xamante ne tey macha allah aw ma benn xalaat maa ngi entraîné matin soir depuis couvre fa aw ma arrêt dañ ma teg si yoon na ma defal ma lii leen la sant. am na maa ngi ci liggéey maa ngi ci kawam comme li ñuy wax rek. jor ne si ginnaawam jor ma koy wax parce que ku wax ku wax feeñ. wax bëri bi jaru ko mais en tout cas ñu bëri nga suma ginnaaw ay kilifa rawatina ki sama ginnaaw toog grand waali ak ñeneen ñu bëri. xam nga mooy li ñu wax rek loolu moom pour man xam nga nañ bàyyi mu sedd quoi hmm. su ma ñëwee si laamu ja dina xam ba xam jor am na ginnaaw wala wala amul ginnaaw. Hmm. li ma koy laaj mooy kan. Hmm. ndax si bu xotaan lay takkee wala seeraan lay takkee wala xam sa cosaan lay takkee. sëbi laay takkee jaar nii. ñoo ga yi ñaanal moo tàngal jaasa ñu ànd dem làmb ja jël ndam le voilà. léegi euh, seen kilifa bu fi fekk Sadam. Mhm. dama lay bàyyi nga jox waaw am nañu ay kilifa ju fekk. tey jii joxal Jordan mu wax nu kan mooy kooku. waaw Jordan dañu fekk ay kilifa te yaakaar naa ne tey jii mën naar naar yaa ngi. te Seras dafa am ay magu mm, magu lamb yu fi nekk. Mhm. yaakaar naa ne fii Seras mën a tudd lamb génn fi Seras. Mhm. tey jii kan la ñuy jox micro bi mu joxe xalaatam wala ñaar gën kilifa ñeen ñaari kilifa la jox ñu wax seen xalaat nga daal di tëj. waaw lu ñuy wax rek dafa am suñu yi nekk fii suñuy mag ñu ngi fi. rakk ñu ngi fi suñuy nijaay ñu ngi ñëpp nag mënuñu wax. Mhm. waaw kii suma grand la Laye Ngom cicatrice bi moom moo ma ko def. Ah. moom moo ma jamoon grand bi mi ngi ni toog. waaw kii mu ngi ne toog Viebara mu ngi nii dafa dafa guddee ñëw Grand Fouta ngi nii ñoom taqe ñu ngi fi gars yëpp ñu ngi fi ku lim da ngay juum kii nag mooy Fouta comme moom mooy suñu mag jox mu jël kàddu su mënee jox vie mu jël balaa sunu sunu mag sunu kilifa di jël Fouta dama koy laaj lan moo tax nga jamono dama doon yar rek mooy ragal na wu bi uh-huh. ragal na wu uh-huh. nga booy bi ñëwaat ni champion la xëy ay dog la rek ay tolof tolof te wax na ko ci biir wax quoi yàlla bëgg si doomu aadama rek mooy am quoi. tax nga jam ko. waaw boobu job la woon rek am na ñu nekkoon suñu digg dënd quoi ñu àndoon di job et puis dafa lëjoon boobu jamono yooyu mu ne ko booy mën nga yem wala mënoo yem mu ne mënuma yem mu ne ko tes taaga bi <laughs> noonu la demee. <laughs> waaw mais ak lu làmb ñu ngi kilifa gu mag goo xam ak lu làmb ñëpp xam nañ ko muy Ah, di nit ku baax ci wàllu lamb di ko ñaanal jàmm ak suñu kilifa gii mu dendal nii nga xam ne ñoom ñëpp ci wàllu lamb. waaw bismillahi mina shaytaani ji ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp di santaat yàlla sant si ñaari waajur di gërëm Sénégal yëpp di gërëm ñëpp ñëpp ñu ngi gërëm waa Seras ñëpp ba gëm suñu président di gëm suñu président Talla di gërëm ñu fi nekk ñëpp bu ma limee ja ñoom Vieux Bra ñu ngi fi ñoom Laye Ngom ñu ngi fi. Mhm. grand Vieux Bra waaw ñoom euh, Ousmane ngi fi. Mhm. ñoom Take booy yëpp ñu ngi fi. Mhm. ak suñu beneen xarit vraiment suñu lépp mu suñu partenaire. muy xarit booy bi mu ngi fi vraiment ku mel ne Waly ñu ngi ko sant gërëm baax a baax. mu si lépp waaw mooy Waly. kon bu ma gëmee waaw waaw nit ku baax la. mais nan ngeen di waajalee le 15 mai. mai bi. di gërëm nag ay adversaires yoo xam ne nii. waaw ay moromam yu fay ñëw. waaw di santal yàlla bu baax. waaw wan na ñin. waa Seras. ñëpp dinañ mobiliser soobee yàlla si biir si kaar yi si tiset yi incha allah kenn du fi des xarit sax dañuy dem làmb ji. làmb ji fa ñor ñëpp làmb ji waa Seras waa Daral kenn des Pikine comme li nga waxee mhm. kenn du des man nag maay seen mag man maay seen njiit tey xale yëpp man lañ jiital maa seen njiit fii mhm. gëm ne xale yi li mu xale yëpp set loxo fi nga booyee dañuy daan seen doole ci liggéey mhm. yaakaar naa lii nag dafa neex Jordan amul lu dul fii ba mu am seize ans la ba même douze fi ñëw kon ñun ñoo ko yar jàngal ko lu bëri fépp la amee fii kon bu ñëwee tey ñëwaat fii ñuy jox benn bis mu ne def ma ko fenn lu seeraat laa koy defee li ñu jëlee jugal mhm. vraiment dañ koy sant di ko gërëmaat mhm. si xalaatam booy mu nekkal ñëpp ay champion fi nekk mhm. di gërëm vraiment café ji fii fii la lépp nekk booy yëpp maa leen gërëm di sant du mu jaar kenn kon xamal ne am ngeen bis du jordoon ma am bis waa dara yéen am bis bis bi seen victoire la yéen a ko moom ngeen feetoo ko fii ku fi ñëw nag dafa wàlli saan box ay Sibikotaan lépp fi la amee lépp kon ñun nag di sant daal ñëpp di gërëm daal ñëpp. di gërëm daal incha allah doomu dangu xaar ñu incha allah la leen daan fête victoire bi Seras soo ko dellu si butaan incha allah yàlla. mais grand dañ mu tarit ñaari kàddu. rahmatullah wa taala kontaan kontaan bu xam ne man damaa bougé woon sax damaa tardé. mais damaa def sama kéemtulaay kattan pour fekkee lii. ndax lii ferte la su ñun. ferte su daral bi. Mm-hmm. waaye ferte la si jeunes yi nekk fii waaye ferte la si waa Loso. Mm-hmm. waaye ferte la si kefe gi nekk fii. tu leer laa la xamal nag. mooy lan gis nga xale bi uh-huh. yàlla bu ko cat duggaat. yàlla bu ko cat duggaat si barka salaatul faatee si barka jawharul kamal waaye si barka ayatul kursiyu war si barka salaatul annabi. kii ndayam daf ko gërëm. magam gërëm ko. Mm-hmm. ay mbokkam gërëm ko. kon boog li amoon. mënul ñàkk mm-hmm. ndax booy doo ba fa xasalu mm-hmm. dugg si pax mm-hmm. amoo ku la yor loxo yàlla dogal bis nañu yor loxo alhamdulilah ala kulli xaal la ñuy wax. kon boog Jordan. doomu Dango moomu. moom da doon dóoree. dina xam ne mënul dóor. loo bëgg wax ñoo ko dàq dóor. te bu ñuy dóor duñ bàyyi muy taxaw. du leer laa la wax. du leer laa la wax. xam nga mbir mi. waxoon naa la ko si diggante. waaw dégg naa la waxoon naa la ko fële waaye dañoo woon am nañ sax ñu mere. man dama doon ànd ak ay mbër mag kii amul lu ñu deful si làmb. Mhm. waaye dañoo dañoo riigu. riigu riigu nag moo ñu indil tey lii. Ah. waaye di nga xam ne Jordan doomu ah. Dango ah. ah. Mm. waaw mais gars yi. dara jugal waaw sant ñaari kàddu kii rek a kii rek a jëles. moo ko waral. bés boo xamante ni moo gét events lañ ci àndal ànd ceeg Pape Souleymane Bathily dafa nekk bés boo xamante ni nag date historique la ndax bés boo xamante ni ay grand combat rek lañ ci taxawal ah Lac Rose war cee daje ki nga xamante ni mooy ama neex loolu rek day doy na bés ah Jordan doomu dàngu loolu doy na bés Alboury Njambaan 2 loolu loolu doy na bés ah kon bés boobu noonu ñu ngi ciy woo ñëpp ñu ngi ciy woo amateur di ci woo supporters di ci woo képp koo xamante ni rek doomu réew mi nga ndax bés boobu dafa nekk journée boo xamante ni journée de la jeunesse la jeunesse bi lañ ko tuddee te c'est la jeunesse qui au service du peuple kon jeunesse bi yëpp ñu ngi leen ci woo ñu ñëw jàppale ñi nga xamante ni moom mooy euh, moo gën events ci bés boobu noonu jodoon ma bàyyi la nga ah tàggatoo woote mobiliser ah ak euh, wax ak ñi nga xamante ni ñoom say ñooy say supporters. waaw lu ñu tàggatoo mooy ñu ngi woo ñëpp comme nu ma waxee léegi waa Seras bu leen bàyyi seen loxo na yéen laay waxal combat du ngeen dugg saret du ngeen dugg oto. dox leen jaar ni ñëw stade di fees dell waaw loolu la am na wax waa Seras di woo waa Pikine woo waa Ginnaaw Raay waa Sébikotane amoo seen fay maa ngi leen di woo waa Diamniadio maa ngi leen di woo sama grand bi toog waali ma ngi ko bu baax sàll la ma jox jox ma caabi ainsi nii aw ma 3 heures du aw ma 4 heures heure ma ko centré damay dem dugg su ma fa jógee dem géej kon boog maa ngi sant ñëpp di waa Colobane moom fa laa juddoo maa ngi sant waa Colobane bu baax di woote nag combat bi dafa ma ñor képp kuy bëgg a maa ngi lay woo si bis bi le 15 incha allah ñoom ñëpp nañ ñëw taxaw ci bu baax maa ngi nuyu ay sama copain ci ginnaaw xam nga di nuyu xam nga taxaw keel maa ngi koy nuyu bu baax booy bi ma àndal nii booy sébi ñëpp xam nañ ko nga def ay preuve ñoo ànd xam nga maa ngi koy bëggee di nuyu waa si sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax maa ngi koy nuyu di ko ñaanal xam nga suma sëriñ la soxna may galas maa ngi koy nuyu di ko ñaanal tamit suma sëriñ la maa ngi bëggee ñëpp daal di woo ñëpp combat bi nag moom pour ma wax jaru muy bëri ah? lu ñu war ñun ñëpp xam nañ ko mooy dem jàpp ko juma ko daan ko bàcc ko gësëm ko muy leer wiccax ko dem suñu yoon loolu moo ñu war leneen